taalibe yi sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif nee sëriñ Bassirou mi ñuy nuyu nee ci làmb ñu sëriñ Mountakha ak ndigalam kon sëriñ Mountakha mooy nuyu bokk muy tàmbalee nuyoo bi sëriñ Cheikh Jëmb mi fi Cheikh Ibrahima Fall tam jaar ànd ak bokkam yi ñëw fii. ànd ak fekk fi jëwriñam yi. mu fekk fi jëwriñam yi. tànk yi nag sant rek. nee tànk muy tànk rek. fii rek la ñëw bu yàgg. fii rek la ñëw bu yàgg. waaye mu boole ca kàddu yam ca daan boole. waaye mu boole ci kat mu demee. Serigne Bassirou mi nga xam ne. Serigne mi nga xam ne. dafa ñëw. indi leen bëti Serigne Mountakha. ak xolub Serigne Mountakha ak yërmandeem. ak xolub Serigne Mountakha ak yërmandeem. ak ko doon seet si liggéey bi. doon seet si liggéey bi. am lu ko ca booleeloon. Serigne Mountakha am lu ko ca booleeloon. jaar ci Serigne Cheikh jëm. ni ko jaaral ci Serigne Cheikh jëm. xam na liggéey bii. xam na liggéey bii. nii mu deme nii mu demee. yitte ak Pastef. moo ko indi fii. ñu dëgg malaat beneen liggéey boo xam ne. ñu dëgg malaat liggéey boo xam ne. waxuma teg ko fi suuf. waxuma teg ko fi waaye mënee su ko woyofal. waaye mënee su ko woyofal. mënee dara. mënee su ko booleeg dara. te mooy weer wi ñuy jublu. muy koor gi. bu ne koor gi nag xel dem ci ndogu yi ndogu yi nag muntu ñàkk de te liggéey bu yaatu di liggéey bu diis Serigne Bassirou wax na ko léegi Serigne Mountakha moo xalaatal boppam ni ñaari liggéey yi mu ne su koo boole moo tax mu ni Serigne Bassirou na ñëw leen ci ji ñu waajal jooja. bu jooju eggee ñu dellu si waat ci ñii. ndigal Moussa bi gën Serigne ñëw ci Cheikh na ko Cheikh Ibra Fall di gàttandoo. ak nam cey bëggee. ak nam koy defee nu kawe ca boobee ba léegi. ndigal lu mës a jóge ci Serigne ñëw ci Cheikh Ibra Fall. mu demee nam daan demee. ba ci ndigal li ñu nekk tey bu yàggul rek la fi sëriñ Bassirou mi ñëw andi ndigal li ci barab bii waaye nii ñu ko liggéeyee defe naa ni yéen ñu fi nekkoon sax defe naa ni yéen ñi fi nekkoon sax jaaxal na leen nii mu demee ndax nii mu demee neexul woon xalaat neexul woon a xalaat ñaan gu nangu. xanaa ñaan gu nangu. ak aajo ju faju dara da ci dul kéema da ci dul yéeme rek. dara da ci rek. loolu moo daje loolu moo daje fii nag. ak xol yu nangu. ak xol yu nangu. na ko Serigne Abdou Lahad Mbacké waxe woon. xol yu nangul Serigne Touba. xol yu nangul Serigne Touba. xol ba wane woon ni ñuy nanguwale Serigne kon nag xol ba wane woon nu ñuy nanguwale Serigne ba xool yëpp nangul Serigne Touba. jeexit jooju des fii. jeexit joojee moo des fii. ndigalul Serigne Touba nag lu mës a ñëw. ci Cheikh na nañ ko lii itam. day àgg nañ ko bëggee rek. yal nañ fekke nag. ñoom it ñu ñoo jox ndigal li. koy jox. nun ñin koy jox. ñu yàgg ñu koy jox. nun bàyyi faali. ñu yàgg koo jëfee. loolu rek la ñuy ñaan. sëriñ bi nee na xolam sedd na. sëriñ Basiru Mbàkkam sëriñ Abdou Khari nee na xolam sedd na. te ba xolam seddee. xolub sëriñ Muntaxa sedd na. xolub sëriñ Muntaxa bu seddee. xolub sëriñ Tuubaa sedd na. ba xolub sëriñ Tuubaa seddee. aaji yëpp faju na. adduna ak àllaaxira saayir ak baatin ba faaw loolu la ko sëriñ Basiru waxoon dina ko wax